kontaan lool nag waaye di ko teg ci sant suñu borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo dog bés bu mel nii ne dinañ musa daje ci kër gile yàlla te kër gii di kër suma maam ki jur suma yaay li tax ñu naan boobeen ko tax tey moom la ci yàlla teg mantu gi tax bañ xàmmee ko ci biir dëkk bii ci biir réew mi daan ko wax góor gi miñaan boobu ci kër googu nga ma fekk tey ma ànd ak suma alhamdulilah rabil alamin ñi nga xam ne ñooy élimaani ji di jàkki nduureen di jàkka joo xam ne alhamdulilah alamin tey ci biir Banjul su ko fi jàkka magee it du passé benn de alhamdulilah rabil alamin wax nañ ñu ne jàkka ji la dey jàkka ji ñu ko toxalaaleel ci ci ci juddute mooy jàkka jooju nekk njaayeen ci angul si eh, njaayeen gi ci angul si muy jonction angul si ak dentin njaayeen foofu ñu ne jàkka ji ne ci biir kër gi dañ ko xutba ci suba xutba bii ci bëccëg muy jàkki nduureen yalaate eh, jàkka jii dey góor gi lan ma ngeen nduur eh, seq ko ak góor gi miñaan boobu ñu bëggé ko lool né séeréer ci seen jaaka jàngoog waaye ku ci nek ci ñom tuubeen ñew ci yow gor gi miñaan tudda Abdoulaye gor gi lat me nga du tudda Ibrahima ki leen tuubal non di gor gi Ibrahima Diallo di borom ndombo tank bu yaatu ci islam mo nek te ci Lamine Koto ñu ko seyaare ci ñomi Lamine gor gi Ibrahima Diallo momu mo tuubal ñaari yele yaa rabbi nag di yàlla suñ borom lépp lu barkeel rek ñu xàmmee ko e, te dinañ wax ne alhamdulilah rabbil alamin waxtaan bi nga ñëwee tey dafa dafa sol ñaari mbaxana benn bi mooy Banjuli démba nu meloon surtout bu yi xewaan ak tamit e, jamono bi ñu tollu tey nattu bii ñu yàlla teg waaye Abdoulaye dama bëgg ñu ñu rafetal suñu xalaat rafetal suñu eh, wax jëm ci suñu borom ne natt bu ñu yàlla teg la waaye ci ñun ci suñu xam-xam mu néew gàtt lool lu ne suñu borom ci biir waxi teraanga yim ñu wax ci dundin wone na adduñu ñun doomi aadama ne seen dundin ci melo ci jikko ci ni ngeen dëkkee ci ni ngeen di toppante ni ngeen di jàppalantee ni ngeen di yërëmantee a ni di cëralantee mu bokk ci nu ngeen di jaamoo seen borom bu amee tuuti xejam mun na indi nattu yu mel nii ndax yàlla fàttali leen boppam ñun noonu lañ ko gisee ne bon feebar bii dey boo gisee mu dal ñu ñun ci suñ bopp dañ war gesemu mooy ñu war a seetaat ba bopp seetuñ jikko yi ñu seetuñ jikko yi fa lañ ko wéer te boo seetloo mbir yi santaane ci ne feebar bii noonu lañ ko war a moytoo loo xam ne amaguloo garabam xàmmeeguloo nu mu tudda ñu ko ooyee corona corona nag e, am na lu bari lu ci nit mun a waxtaan ne waaye fi ko mun a waxtaan mu sottee mooy jàngoro la waaye jàngoro ju buñ xamut naka la mel ak tamit lan la laal ci yow ak tamit nakanko nga eh, mun a fajee ci ay garab waaye nag wone nañ ne jikko bokk na ci jikko te boo boo delloo Banjuli démba jikko ko tax a toog ñuy ko fàttaliku tey ci biir jàngoro ji ñu nga raxas sa loxo nga ŋaaw sa gémmiñ naaw mooy nga nga use masque gannaaw masque bi raxasu bi mu ne nga em nga em bugguma wax ne nga toog sa biir kër waaye nga em ndax wax bi rafet te em yàgg nañ ko wax nit wax nañ ne sax ñaareel bu jigéen muccee ayi biti dafa doon ku em ci biir kër da boo emee ci biir kër mucc ayib bi mbedda bii itam mu ne la nem amuloo aajo bu tax be nga war a dem toogal e, loolu yëpp ci ngor la jëm ak tamit ci jaamu yàlla doxi kasara wóorul te doxi kasara jagul bon ñu ne bul kasaaraal bon li ñoo li ñu digtal ci ne bokkati ci liñ mun a jël langum ci fanka fanka jàngoro ji bon nañ wax ne islam am na ci soxla islam set la sonta bala ngaa dugg ci lenn danga war a set mun na nga raxasu soo génnee ñëw raxasul boo laalee laalaat boo ñëwee raxasul ndax joxe nga loxo ndax joxe loolu loxo raxasul mu na nga raxasu saabu ba set dugg sa biir néeg ndax xam nag boo la ne set nga ci loxo raxasu nga saabu ba set yaakaar naa ne loo lekkee du la lor te bon laalee sa bët yi du la lor boo laalee sa bakkan du la lor boo laalee sa jigéen sa sa gémmiñ du la lor te nit nag moom boppam te mun da laal bakkanam mun dalaal laal gémmiñam mun dalaal bëtam yombul de waaye ndem ne na nag jafe na pour nga mun a toog doo laal sa cër yooyu raxasul ba set beneen bi mun a nga ŋaawu te imaam boo delloo ci ŋaawu setal lan la ci nit nit dafa wara a téye làmmiñam nit dafa wara mandu ci gémmiñam moo xam wax lala wax lala war du noonu ba pare di wax dëgga ba pare bu lor nit ci sa ndax loolu yëpp bokku bokk na ci islam loolu yëpp santaane islam la bon ñun dañ jël na nattu bi daf ñu delloo si ci yàlla bon nañ gëm ne nattu bi daf ñu delloo si ci yàlla nga ngaaw sa gémmiñ gi nga raxas sa loxoy nga em sa biir kër nga xam nag bu ñu emee lu bari ci ñun day loo xam ne toogoo na sa njaboot jafe woon na pour waxtaan ak ñoom jafe woon na lool ñu bari ci ñun wax dëgg yàlla yomb ñu woon toog sa njaboot ji xàmmee sa xar kanam gi <laughs> jafe woon na de waaye léegi nag mu ne dellu ci kër gi nga toog em soo emee bu yàggee ya-, kan nga waxtaanal sa njaboot ji mu ne nga waxtaan na sa njaboot ji bon bokk na ci boog li laa delloo ci sa biir njaboot ji bon feebar bii nattu bii nañ ci rafet ne nattu bu ñu yàlla suñ borom nattoo la pour ñu dellu ci moom te li ñu war rek mooy ñu dellu ci yàlla bañ ko caaxaanee tëj jàkka ji tëj jàkka ji nga julli sa kër lana manqué ci julli xanaa kay dajaloo baa manqué parce que juma ja juma du xeer wi ak korget gi imaam dañ nañ dégg may ko wax nit ñi toujours jam juma mooy jamaat ñun xam nga arab mënuñu dégg ñun ñu jàngul arab mënuñoo faram-fàcce lan la bi tekki waaye loolu mooy mbooloo du noonu fa ñoo daje ñun mbooloo loolu lañ gëj a def de waaye julli ñu ngi def de bon yaa ngi jaamu yàlla ba tey te li gën ci doomi Adama. moytul lenn warul lu moy moytu lu baax kenn du ko moytu lu baax Ablaye kenn du moytu lu baax boo degee moytul rek du lu génn moytu feebar bi ci fiñ toll tey moytu la laaj ah munuloo xar nag boppi kenn ne foog nga gëm li ma gëm waaye nag ak loo doye di doye di ak loo dof dof dof ak loo gàtt gàtt xel niw bii te dañu ne li lee ba ko rey loola jar naa moytu de te li rey kiñ suuli buñ la ne moytu ko la war rek mooy moytu mm-hmm. moytu ko rek xam nga olof daan na waat ne ñu ne bu le bu xalee rëddee line ne fii ku fi jàll sa baay dee su ma bàyyi mu ne bul jàll de wiira jil bala ngaa wax xale yi ne fen ngeen mu ne wiira jil njëkk toog leen wax ne yéen a mun a fen mu ne waaye wiir a jël bul jàlla looloo wóor te feebar bii fam dooree ba agsi fii sori na de te ñooñoo ñu ëpp capacité ñun li dañu tiit ci jamono biñ toll tey mooy ñun suñ capacité waaye dut booy yaatu wut Ablaye foog ñu laaka angale tuuti it nag parce que suñ capacité waaye dul lopitaan yi am dafa tuuti ba nañ njëkk a ne réew mi dafa tuuti réew mi dafa tuuti su baree ba bàkki bari dañoo dana wax ne one point one million léegi nel two million mooy suñ population ba pare nga am lopitaan ñaata ba pare lopitaan yooyu tabax la ndax am na instrument siñ soxla lopitaan yooyu tabax la de néeg la tabax la waaw waaye ndax machine yi nga xam ne mooy di advanced aspective machine si am ci àddina bi ndax mu fa ba pare nañ ñëwaat nag ci social worker bi ñaata docteur lañ am ci biir Gambie ñaata docteur ñaata docteur réew moo xam ne docteur am da ngaa coppati rek mu jeex ñu jeex tàkk réew mi amul two hundred docteurs amul fii docteur laa wax de waxuma medical euh, naka social worker medical worker non non waxuma health worker si de ay dispensers ak ay ñooñu non non dama ne docteur ñoo ee docteur ci ñun niñ xamee docteur ñan la alright université bi ñu am waaw mu ngi train léegi docteurs ñuy am waaye ñun li ñu xamoon mu njëkk a mooy waxtu wuñ la traîné ci lopitaan yii nii ci suuf suñ boor ci université su mel nii da ngaa dem housemanship ca biti ñu jàppale la gën a waay din sax horizon ci njàngam mbiri docteur mun ngaa mistake yow maçon bi mun ngaa mistake technician bi yow de technical engineer bi mun naa mistake dafa dogaat xam-xam ba utaat beneen wala mu toj dafa defaat beneen waaye docteur bu mistake rek rey <laughs> docteur du mistake de docteur du mistake imam mbon kooku dafa war a mokkal dafa war a mokkal bu baax mu wóor ko li moo def wala nga ñëw léegi ñëwaat ci Gambia li ma wax léegi ne ñun suñ capacité dafa tuuti naka euh, euh, euh, PPE yi ñu wax léegi PPE PPE yi nga xam ne moom la ñoo compté masques yeeg you know instruments si nga xam ne xëy na dinañ ko mun a pour pour def eh, eh, eh, naka la ñu koy testing si yeeg gadgets yu mel noonu ñun pare wuñ ko woon de pare wuñ ko woon de ñun xëy na pare wuñ woon pareyaas bi tax ba yu mel nii bu ñu dabee dinañ am nuñ mun a fagaroo déedéet bon fagaru bi ñu war a njëkkee ñun mooy li docteur yi wax ñu def ko moo di moytu leen nangam ñu moytu loolu docteur yi léegi élimaan bi waxatul de élimaan jumaa jaag bisu ba ca jaaka ba ca cooc baag kilifa bi ci kër gi kenn ñun amatul wax lu mooy ŋaaw sa gémeñ ne muut bàyyi docteur bi mu wax loolu mooy yoon élimaan bi laa wax de imaam ratib ak imaam bi ci kër geeg ñëpp boole ci faada ba biso ba ñëpp léegi ŋaawu lañ laaj muut sa gémeñ nel muut ñun ñëpp ñu ne muut kan moo war a wax docteur yi waaw ñun docteur yi ñu am bu ma waxee mbiri capacité docteur yi ci lañ health workers am léegi lopitaan bi dafa jafe woon sax pour bala ngaa gis doctor lopitaan bi ba jàmm di am rek sax ba léegi dafa jafe kañ ngaa gis docteur kañ nga am dispensaire kañ nga am nurse ñaata fi nekkoon léegi nga ñëw am mbas mu mel ni dal ci suñ kaw nga yëg àddina bi ni mu yëngatoo nañ nañ bay àddina bi rek njëkkee fii rek te li gën a gàtt ci suñu àdduna mooy Dakar senegal gii mooy suñ nee ba ñooñu gën a jigéen gis ka la fa xew te ñooñu ëppale waaw waaw ñun nag alright waaye sant yàlla it ne ak li moo ñoo néew doole yëpp day dooroon nañ fagaru bu baax bi yégee yégin dooroon nañ di seet naka la ñoo def ba mbas mi du law waaye dañ dem ba bi euh, gannaaw gi e waxkat bi ëpp ñu doole te waxkat bi mooy ki nga xam ne moom wax rek ko war te xamul la ma wax lan la li feebar bi mel ni meloon yëpp soo demoon Serekunda ci diggi sere da danga foog ne dara xew ci àddina ci marché Serekunda digga boobule fi police yi boori police station bi noonu doo xam xàmmee kii kan la ak lii lan la ba bor bu set xew la foofu boor bu set ngénte la boor bu set takka la foofu euh, junction boobu le every day is Christmas foofu war nga ne protection bi ñu waroon a am bokkare ci capacité bi ma wax nii de police person am na fa autorités yi xamoon nañ ko ñun ñëpp gisoon nañ ko ñun ñëpp laa wax de gisoon nañ ko waaye kenn kayawut affaire bi ñu ragal ne waxkat bi doon wax ëpp nañu doole ñu naan ah lii xewu nag xew naag munum fee am wax ju rëy laag politique laag yëpp di ko wax waaye ña ko doon wax yëpp koo ci gis a xeeb ko parce que xamul la moo wax te la moo wax óoru ko te su wax doon war a am wax dëgg yàlla kooku xam war a jotagut mun a a wax wara a gud a wax parce que ku xamul dara waroo wax dara da nga war a noppi déglu ñi xam wax ndax nga mun a taataan loo a yóbbuwaale te mbas mii ñu dee liñ fàttaleku ci jamono eh, ñu ngi bugg a mag si tuuti nag waaye liñ fi fàttaleku daan nga fi am mbas waaye du daan mel ni bii mel parce que fi njàmbataan sax mos a doon mbas njàmbataan saxati xale yi da ngaa gis njàmbataan whooping cough ba tax ñu dugaloon ko ci système bi ba bu liir juddoo dañ laa immuniser ci pour bul am whooping cough bon amoon na fi ora nga ñëw meningitis lan moo indi woot afdaay afdaay feebar dafa daloon ñu ko ñu ko wér ko sa naan ci biir waxtaani suñ kilifa yi ne meningitis bii ci lawoon ñu ko ooyee jàddaaral dafa rey ba pare contaminating disease la boo xam ne dafa awale waaye dañ amoon dañ am gannaaw gi ñu bi ñu yàlla dimbalee bañ màggee ci dafa am garab am eh, njënda buy laa ñenda ñu ne ñeddu ak injection beeg garab nga koo faj after all discovery si feeñ na ban maa ngi fàttaliku bi ñoo liggéey lopitaan masque bi yàgg na waaye ki daan dem di deal ak patient bi moo daan masku waaye lépp docteur yee daan wax bon mbas yàgg na waaye moytu it yàgg moytu nag moo mag mbas moytu moo mag mbas parce que moytu dafa amoon balaa mbas di ñëw bon nañ jëfoo moytu te buñ weddi xalaatkat boobu di docteur bi buñ ko weddi kamoo waxal ca moromi docteur ba am ba am capacité ca biti discover am lam find lam discover ba tamit mu expand ko ci àddina bi ñu yëg ko parce que mbas bi World Health Organization ñoo ko gàddu te bon dañoo séddoo xam-xam ndax te adduna bi nañ ko waxee ne palanteer adduna bi benn benn néeg bu am benn palanteer la boo ubbee boo ubbee ñëpp bokka moo tax ñuy wax ne eh, the world is a global village ku nekk di wax ne globalisation dafa tax bi lu bari yobba moo di lépp lu xew nañ ko bokk lépp lu mun am nañ ko bokk xam-xam bi nañ ko séddoo bokk ko bon at least ñun tam amoon nañ boog chance pour xam liy xew lan la ñu fagaru bala moo jot waaye gannaaw nag yii yëpp daan na am te kilifa yi dañ ko daan faj njàmbataan dañ ko daan faj parce que li ma fàttaliku eh, reelu na nag waaye njàmbataan dañ daan kii njàmbataan dañ ko daan si ndax bi nga gis ni bat bu mag bi si ndax bi dañ ko daan tooga di ko jox mu lekk ñankari sa eh, ñankari ñankari kamba yi dañ ko daan jël baxal ko jox muy le muy naan lii yëpp nit ku ñuul da daan xalaatee nii boole ko garabi tubaab biñ laa jox waaye bi mbas mii na kur ñu ñëw wax ko ñi gàtt xel na amut waaye nag mbir li ma gëm de ak nit ñi daan wéyee bu njëkk ci biir Banjul bii suñ mag ñi xamuñu woon weddi de la ñoo xam ci yooyu dinañ dinañ màndu dinañ mandu de buñ la mun da wax ne waxoo dëggay dinañ mandu rek ndax wax nga dëggay dinañ mandu parce que dañ dan mandu ci sen xam-xam mandu ci sen gis-gis mandu ci sen digantek sen morom mandu ci sen digantek sen borom parce que sen digante ak sa borom lo xamul nopil lo xamul nopil lo munul bayil, Gambia bu njëkka surtout Banjul gi yàgg nañ di am kelifa yi di atté ñuy leen di déglu ci sen atté di moytu ci seen atte tey bàyyi xel ci seen atte fiñ toll tey nag ñun kilifa yi li ñu woon mooy mbas mii day nattu bu ñu yàlla teg la te ñu dellu ca yàlla ñu gënal amul lu ko faj ñu ne xakay lan moo ko faj ñu ne benn raxasul ñaar ŋaawul ñett emal sa biir kër emal sa biir kër nag sàmm ma sàmm sa boppala la masque ñu laa wax nga ŋaawu dina la protect protect sa borom ñun mu njëkk ci Gambia suñ amaan lu mel noonu surtout njàmbataan ni leen ñi borom ci biir kër gi laa nekk waaye dafa am fuñ ko daan teg ci biir néeg bi mu nekkaan nit ñi ci biir kër gi te du du du toroxal kenn eh, leprosi leprosi muy muy feebari ngaana gi le ñu ne feebari dog-dog bi dafa am borom dekk ci biir kër gi mu am nu daan def ak moom di ko moytu te du yàq dëkkin ba te du wàll keneen daf daan am bon mbas bii bu ñëwee dañ waroon xam njëkk a ñun lan mooy mbas mi waaye tubaab bi ko njëkkee ca ñoom njëkkee ca ñoom faagaagal leen di ay junne yu bari sa ñoom ñun dañ waroon a waaj balaa aksi fii li ñoo gën a mun a war a waaj mooy balaa agsi fii ñu góorgóorlu xam ne masque cala ŋaaw sa boppa cala ba pare quarantine cala quarantine yàgg na fi di man maa ngi fàttaliku home for une boo boo rombee sanatorium gis nga fii ñoo liggéey foam factory bi nekk fii sanatorium ci bàmmeel yu njëkk yi soo ko rombee amoon na ay néegi néegi néeg ay néeg cupen cupeni néeg yoo am nga néeg yu ndaw yi nekkoon ci diggante euh, euh, naka ak poli ak euh, ak wenco néeg yooyu home for infirm di doon HFI home for infirm buñ dee daan quarantine ci jamono jooju ci mag yi nga xam ne sonnoon nañ duñ nekk di las las ci mbedd mi fa lañ leen daan yóbbu bon quarantine yàgg na fi ki bu la wóoree ne da nga lu mel ni ñu ne nga dëkkal sa boppa ngum ba xam afa am lum la tere de ak lum laa dimbale say joboot nga taxa taxal say joboot wóorul am na ñu ko dul mun a staan xëy na yow xëy na eh, eh, dëgërlaay bi nga am sa sa njaboot amul dëgërlaay bu mel noonu wala am nga mag mi ci kër gi sistanam munu da dékk lu mel noonu nga indi ko ci biir kër gi lor ko lor keneen parce que benn contamination bu dugg ci biir nit rek benn kenn nit bu duggee ci biir kër gi rek dëkk fi ñaar ñetti fan week dina lax dina taxal lu toll ci ñaar fukki nit benn nit kooku rek ñaar fukki nit ñaar fukki nit ñooñu nag ku nekk ci ñoom fam jëm dina fa taxal beneen ñaar fukk bon loolu neexatiyee di te fii amoon na yooyu te Banjul duñ la daan beddi duñ la daan toroxal duñ la daan seetee boot yu ñaaw waaye bi Covid bi doolee Ablaye dafa am lu ko ni lu doon gisee mu mel ni ki yow soo su ko nit ki amee rek jeex na adunaam yàqu na aduna keneen yàqu na déedéet ñun ñoo yàq aduna bi gannaaw daf la dal teela lay wone sa boppa ñu tes la nga am ko teela la nangu faju bi nga dem quarantine bul ko taxal keneen waaye ko ne quarantine mu ne diw daf ma beddi déedéet beddi wula waaye dañ bañ mu multiplier loolu amu doon Banjul fii mag ñi dañ daan am quarantine sa boppa self quarantine ci kër gi dañ ko daan am dégg soj soj koo wax ni soj dafa wàlle du la gëm soj dafa wàlle te tey jii Ablaye man mus naa jiite ci jàkka ji wax am ku ñëw ma jox loxo ma ne ko déedéet du ma la jox loxo waaye ci suñ diggante xam na la xew waxtaan nañ parce que maa janoo moom maa ngi ci bunti jàkka ji ma janoo moom ci mbedd mi mu la ñendoo ficce ñend ba pare def ñuy loxoom yi ba pare ñëw ci jàkka ji bu ko maa jox loxo yi ma ne ku déedéet ñun noonu lañ mel ñun dañ yaatu xam nga dañuy yaatu dañ yaatu ñun dañ yaatu lool islaam amul fenn fum mu la wax ne da nga war a ñëw ak sa lu tilim loolu jox ko nit mu wax laa jox la ko déedéet waxul la ko déedéet islam la loolu de islam nangu na fa mbas madal bu fa kenn génnee waaye bu fa kenn dugit islam yedda nañu ci bon yàgg nañoo am quarantine di loolu seet ko rek loolu quarantine la fi mbas mi dal ñooña buñ génn na dem feneen waaye feneen bu leen fi jógee dem foofa bon quarantine yàgg na am li óor te óor ci Gambia fi ñu toll tey mooy ñun liñ bëggoon mooy eh, media bi di eh, di affaire bi di di yokkoo di yokkoo ñuy ñoo gën a setal ñaata seeñ ak ñoo ñale fuñ jógee parce que ñaata feeñ ba pare rek ne am nañ léegi juróom-ñett yu ñu am tey doyul day war a xam juróom-ñett ñooñu fan lañ jógee ñooñu mun a fagaru ba pare war nañoo xam national si li fi nekk ci li fi nekk ci Covid bi ñu tëdda national bi ñaataa cee Gambien ñaataa cee waa jógee fan dañ dinañ xam li ngeen di ooyee eh, contact tracing contact tracing bi mun naa commencé di doore ci yu mel noonu ñu xam ne eh, li lee ngi jógee Bakaw wala lee nga jógee Serekunda wala nga jógee Banjul wala nga jógee Serek wala nga jógee Sénégal wala nga jógee Ghana a yooyu dañ ko war a xam dëkk bu ndaw bi bu buñ toogee bay am ay tawtan nangam war na nañoo xam tawtan nangam boobu na la